di tàmbali rek damay daal di gàttal rek résumé di wax ni F24 mu ngi tàmbalee d'abord incliné wu devant la mémoire de tous les Sénégalais yi nga xamante ni ci fan yi ñu jóge ñàkk nañu seeni bàkkan ci événement yi nga xamante ni am na senegale yépp di ko naqarlu mooy ay doomu Sénégal yi nga xamante ni ñi ci ëpp dañ leen boom te ki leen boom mooy nguuru Macky sàll waaye it F24 mu ngi regretté yenn scènes yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko aussi ci réew mi muy euh, attaques yi nga xamante ni ñenn ñi def nañ ko te ñun jàpp nañ ni bokkuñu ci ñun bokkuñu ci ñi nga xamante ni ñu ngi xeex pour démocratie wu Sénégal ñu ngi xeex pour que Macky troisième candidature am mu tegee ko wet ñu ngi xeex pour que Euh, leader politique yi nga xamante ni Macky Sall mu ngi leen di galgal ginnaaw bu mu ko defee Karim Wade def ko euh, ni mu tuddati xalifa Sall tey mu ngi koy bëgg a def Ousmane Sonko te amul beneen leader politique bi nga xamante ni il est à l'abri de cela que mu dàkkal ko bépp leader politique bi nga xamante ni war nga dem ci élection yi nga mën ci dem waaye it xeex ngir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 Et pour la plupart, ils n'ont même pas d'avocat, ils n'ont même pas de conseil. Personne ne les suit parce que de nous Il des efforts que Pastef fait, il y a des efforts que le F24 a commencé à faire, mais par rapport aux proportions, il y a affaire Bidjel, des centaines de jeunes On parle ici de 500. ils n'ont même pas d'assistance moo tax je pense que F24 am na taxawaay bi muy def ci loolu lancer un appel pour que ndaw ñoo ñu mun leen topp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 c'est-à-dire lu ñu bëgg wone opinion internationale CPI bi nga xamante ni ñu ngi monter dossier pour mu dem fa ak yeneen ak yeneen ñooñu la ñu bëgg won ni Sénégal fii tout nice citoyen sénégalais yi manifesté wuñ dara amul opinion bu ñu manifester ay bandi ñooy génn rek bëgg bloquer réew mi te du dëgg communication bi am fan yépp lool la la meilleure manière de déjouer cette communication xam nga mooy lan mooy de lancer une vague de manifestation yi nga xamante ni day permettre à nos mamans man sama yaay mosul teg tànk ci marche ak samay tànt ak sama yenn kilifa mais wóor na ma ni bu ñu wootee fii ne nañu daje ci bërëb manifestation pacifique autorisée di ngeen gis lu ëpp ay millions sénégalais yu génn c'est la meilleure manière de déjouer ce mensonge de Macky Sall il faut que parallèlement à ce mensonge bi muy wane ni sénégalais yi génnuñu naqarluwuñu ay bandi rek ay génn di kas ñu woote manifestation bi ñu autoriser ko par A ou B suñuy yaay suñuy pàpp suñuy kilifa suñuy ràpp des milliers de sénégalais voire million ñu génn pour que opinion internationale gis ni peuple bii dictateur u Macky Sall bii mu doon bëggatuñ ko dañu bëgg mu dàq léegi li am yépp ci réew mi que mu dàkk tout de suite que Ousmane Sonko li ñu nekk di ko dunduloo actuellement que mu dàkk que prisonniers yu nekk ci prison yi ñu arrêté leen ñu ñu ñu ñu génnee leen ci li mu gën a gaaw après nag ñu jublu ci mbirum troisième kandidatur qu'il face au face face au peuple sénégalais pour wax leen ni ni ko constitution bindee te man ma waxoon ko waxaat ko duma def troisième candidature et que tous les candidats yi nga xamante ni ñu ngi ci opposition bi dama leen di bàyyi ñu dem c'est ça qu'il faut faire moo tax ñuy woote ndaje bu am solo di ci woo sénégalais yëpp nag dootul sax mbirum ndaw ñi rek mais képp kuy sénégalais nga nekk ci sa kër te gis nañu li xew ci kër ñi ñëpp a ngi naqarlu nguuru Macky Sall li mu teg sénégalais yi fi mu toll nii ci violence ci boom ci fen ay kàcc ak yeneen ak yeneen que bépp sénégalais ba ci suñuy kilifa génn le vendredi 9 à Dakar place de la nation ñu duy ko million plus de des milliers voire millions de sénégalais génn ba monde entier ñu gis ko. loolu mooy vendredi dakaar waaye feneen ci réew mi nañu tàmbali def les démarches qu'il faut pour que ñu mën a amal ay manifestations vendredi incha allah. bu ñu jogee ci vendredi bi dañu jëm ci samedi ca Ndakaaru manifestation samedi bi VDN bi lay doon il faut que monde entier les caméras du monde entier. ñu gis VDN bi sur des kilomètres des kilomètres ay sénégalais suñuy papp suñuy yaay suñuy kilifa suñuy rakk ndaw ñi ñu feesal VDN bi ba mu dem fi mu war a dem ñu xam ni peuple sénégalais moo bañ actuellement peuple sénégalais moo taxaw temm pour que dictature Macky Sall bi mu taxaw ñi mu ñu war a bàyyi ñu bàyyi leen Ousmane sonk injustice bi muy dund mu deñ ndaw ñi ñu bàyyi leen mu jàkkaarloo nag ak askanu Sénégal jël ay engagement troisième mandat mu jóge ci ba mu set wecc bàyyi ñu war a dem ñu dem Sénégal am jàmm keneen ku waxut loolu nag ku waxut dëgg wax leneen. may ma xëy na monsieur le coordonnateur ma am style boo xam ne président Macky Sall ci boppam lay waxam ndax jàpp naa ne ci taabal bi yëpp xëy na maa ko ci gën a xam ndax gën a yàgg ak moom monsieur le président. ñun de ba nuy ànd ak yow gëmuñu won ne fii la ñuy mujjeek yow musuñu ko imaginer ndax maître Moussa Diop mii toog ba ci Cheikh Tidiane ba ci yow mii cordonateur mille 2011 ñoo àndoon ne ca place de l'obélisque sa soxna di fa maye sandwich di fa joxe ndox bind t-shirt non au troisième mandat sol ko mu ngi ci internet jour boobu ci la ñu boom Mamadou Diop yal na yàlla xaare ko àjjana ah ñu ànd ak yow ba fii ñu jàppoon nag ne wax dëgg yàlla mënuñu woon imagine ne fii la mbir di militaire monsieur le président leur est très grave nañ ne l'heure est grave mais elle est très grave monsieur le président bul topp wax naa la ko keroog ñii di la pousse ci lii nga dugg nii amul issue c'est une voie sans issue wax nañu ko Sénégal ñuy def la une de toute la presse internationale am ay mbokk yu ne Japon ancien collègue ñu naan loolu xew ñu nekk Amérique latine ci dëkk boo xam ne on la l'appelait l'exception africaine l'exception africaine ba ci niñ daan traité les journalistes nga ne woon yow ci sa ay kenn du fi arrêté journaliste tey Sénégal on fait partie de dëkk yi nga xam ne moo ëpp journaliste yu ñu arrêté kon monsieur le président de la république nii nga jàmbaarloo ak say xale dégg naa nga ne vous savez vous battre parce que toujours dañ lay vous voyez ñun de jiwuñ la loo loo xeex ak suñuy ndaw jiyuñ la jiyuñ la it loo xeexeek ñun 16 mois 16 monsieur le président defaraatal sa toogaay bi defaraatal sa toogaay fii ay terroriste newuñu fi man duma terroriste maag yow àndoon xam nga ma duma terroriste fii benn terroriste amul ci F24 ça n'existe pas li am kay mooy une jeunesse consciente et qui refuse aussi li nga ko bëgg a teg jëlal li yëpp nga teg ko ci suuf parce que li intéressé Sénégalais yi intéressé aussi yaay yi ñu doon ba ci maam yi mooy jàmm dellu si yoonu jàmm mu ngi ci sa loxo mooy d'abord nga teg affaire u procès bii nga xam ne ñëpp jàpp nañ ne du procès ndax koo toppee viol topp ko euh, menace de mort ñu ne la loolu amul la ko la waroon mooy nga ba ko mu ñibbi jëlal say juge comme xam nga ni ngay waxtaanee ak ñoom nga jël solution teg lii yëpp ci suuf mu jeex xam nga ni nga koy defee. ñaareel ba nga jël kàddu ne troisième mandat bi kat xëy na mu ngi woon sama xel kooku sax mën nga koo bañ a wax ndax kilifa nga waaye teg naa ko ci suuf bu ko defee suñu doom yii ne ci biir kaso bi ñu bàyyi leen école a ngi waaja jeex foog ñu def yi bac foog ñu def yi brevet foog ñu terminer seen seen i examen à l'université ñii war a dellu ci atelier yi ñii yor seen commerce ba ci ñi yor boutique mbagg na ci biti mën a dellu ci seen activité waaye nag sunu fukki xale yeeg juróom-benn yi nga xam ne seen bakkam rot na ci kooku moom kenn mënu koo faase waaye nag premier pas pas yii ñu la wax boo ko defee jàmm dellu si waat kon képp koo xam ne yaa ngi dugal sa loxo wala sa xalaat wala sa xel ci voie de solution voie de solution yaa ngoog teg procès bii ci suuf xam nga artifice yi ngay jaar juridiquement pour ñu jàll ci leneen. ku ne doon candidat Ousmane Sonko doon candidat Mimi Touré doon candidat ku ne doon candidat Khalifa Ababacar Sall ku ne doon candidat yow nga wut sa candidat yow moom mënoo bokk loolu la yàlla dogal ndax nag dañ laa fal falaat la ñun président dañoo wàccoog yow dañ laa defal teraanga bu ne ndax 2011 nag du njëkkoo wan ci opposition bi waaye sénégalais yi fal la 2019 ñu ànd ak ak yow ñun ñii ñu ànd ak yow ñu falaat la ci diggante bi deux mille 2016 nga ne nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs wër ko wax ko fu ne moo tax keroog la nga wax ñu ci bëri comprendre ñu ko am nañu comprendre li Moussa wax ne danga ne ñun ñi àndoon ak yow xamoon nañ ne buñ la ne wii dangay am troisième mandat loolu de mosuñu koo xalaat waaye man la ma jàpp mooy da nga ne opposition ba nga xam ne ñoo doon wax ne boo amee wii da ngay def troisième mandat donc wax ci sax daanaka kenn comprendre ko waaye la ca yomb te ñëpp jàpp ko mooy nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs mooy chaque situation donc monsieur le président l'heure est très grave il faut sauver le peu qu'il reste à sauver ci li nga xam ne moo la dese pour les huit mois à venir xale yi nga xam ne perte nañ ci seen bakkan kooku duñu ko baal kenn ndax nag neuf mois la ñu leen ëmboon jur leen ñi ñun ñii ñëpp ne woon naa duma ci wax parce que vie privée la waaye dañuy interpeller madame la première dame dame la ñu wax une dame c'est une femme madame la première dame vous êtes une mère lii suñu xale yi di di di daj wax ci ak monsieur le président de la république ñu arrêté lii ñuy gis ñoo xam ne kenn xamul lu ñu doon kenn xamul policier lañ kenn xamul lu ñu doon gis nañ leen vidéo yi nekk ci ñépp di ko témoigner loolu mu dakk immédiatement ña nga xam ne def nañ ñaawteef yooyu ñuy ut ñu dinañ leen topp ci yoon buñ leen topp Sénégal yi topp leen feneen muy yi muy ci yeneen dëkk yi nga xam ne dañu am le principe de la juridiction universelle ci yenn crimes yi y a pas que la CPI aussi il faut ñu xam loolu juristes yi xam nañu ko mais ci diggante bi madame la première dame en tant que maire ñun ñëpp ñun ay jigéen ñi fi yor ay doom dañoo sukk jur xale yi ñu rey te loxo président de la république ne ko mu arrêté lii nga xam ne mësuta am Sénégal ba Sénégal di Sénégal musu ñoo toll à un niveau aussi bas de notre démocratie musula am moom personnage privé nga ne woon ma du ma ci wax waaye nag leur est tellement grave que yow ci sa bopp mi nga xam ne vous êtes une maire on a appelé toutes les mères à venir manifester toutes les femmes toutes les grand-mères toutes les jeunes filles borom kër yi ñëw parce que ku sa soxna génn xanaa doo doo ko bàyyi mu dem moom kenn. xale yi ñëw ku sa yaay génn xanaa doo ko bàyyi mu génn moom kenn waaye madame la première dame da am une responsabilité première tuddee wuñ la première dame pour rien de. c'est pour que aussi nga jox les conseils au président la république nga yegg nga téye loxoom. moom li ko war du xeex ak ñun je seema me battre laa dégg mu wax keroog no non no no non waroo xeex sa peuple monsieur le président de la république waxoon naa ko amul benn président au monde boo xam ne am na armée wala police wala gendarmerie bu mën a dox digganteem ak askanam loolu du sa cër vous battre avec nous du sa cër mën ga nag ci politiciens yi nga seet nooy def waaye sa battre avec votre peuple tel qu'on l'a vu depuis trois jours loolu du sa cër monsieur le président de la république encore une fois tegal lii yëpp ci suuf tegal procès bii nga xam ne kenn ci Sénégal nanguwul ne procès bu jaar yoon la ñaari chef d'accusation ñu dàq ñaari chef d'accusation borom dafa war a ñibbi bàyyi candidat yëpp bokk nga libéré suñu xale yi ci mbedd mi ñu def enquête seet ñi nga xam ne ñoom ñooy les fameux nervis parce que nag on naa des indices aussi danañ leen topp ba xam ñan lañu ba ñoom it ñu mën a répondre devant la loi mooy dëgg te nga ñun ñii F24 aussi li ngay sonal salle bu ñu mën a réunion yi sax mënuñ ko am ñu ne dañuy dialogue waaw dem ci lieu privé privé parce que amuñu am lieu public nga yónni gendarme yi pour ñu génne ñëpp sànni leen monsieur le président bu fekkoon ne noonu lañ la ab président Ablaye Wade defoon 2011 kon doo yegg si fii kon doo yegg si fii dañu la woo commissariat central ci blanchiment ba ñu gisulee dara dañ la bàyyi nga dem noonu nga waroon a doxalee ak Ousmane Sonko opposant nga woon moom opposant la ku ne nekk candidat ni ma ko waxee ñi bëgg a nekk candidat yëpp nekk candidat 2011 y'avait 12 candidats yow la yàlla fal jaarale ko ci Sénégalais kon li nga xam ne mooy sa cër te vraiment ñun nag mosuñoo xalaat ne dañ yegg si fii ak yow mosuñu koo xalaat su ma diggante ak yow nag lu ne xaj na ci waaye mën ak yow la woon waaye sa diggante ak les sénégalais la jeunesse sénégalaise tout particulièrement bi nga xam ne 2011 ñoo la fal suñu meeting 2011 yi y'avait pas des jeunes de plus de 30 ans kooku maa ci teg su ma bët ñoo la faloon mënoo ñëw dix ans après ne da ngay xeex ak ñoom mënoo ñëw 10 ans après ñu feesal les prisons de jeunes mënoo ñëw 10 ans après la nga doon xeex contre le président Ablaye Wade muy troisième mandat nga ne da nga koy indiwaat monsieur le président l'heure damay dugg dans le vif du sujet ci ñetti point premier point bi mooy lu indi li yëpp lu ñu dund depuis jeudi parce que sama intervention dama koy def uniquement sous l'aspect juridique parce que sama métier pour que sénégalais yi comprendre un peu parce que ñu bari comprendre. poursuivre nañu benn leader politique muy sénégalais comme tout le monde di membre du f ci poursuite yi procureur lu ñu koy reproché mooy viol ak menace de mort ñu jógee ci procureur egg ci juge d'instruction toujours viol et menace de mort ñu jël ordonnance de renvoi yónnee ko devant la chambre criminelle war ko juger toujours pour viol et menace de mort ñu egg en pleine audience ñu requalifier les fait donc c'est nouveau bu ñu requalifier les faits war nañu permettre ki nga xam ni ñu ngi koy poursuivre mu formuler des observations dans le respect lu ñuy naan en droit du contradictoire ne loolu amul sénégalais yi li ñuy jàpp devant un dossier aussi sensible et aussi léger je me rappelle le 7 février j'avais dit 2021 j'ai rendu visite à Ousmane Sonko chez lui et j'ai écrit qu'il n'y avait pas de viol et que je sentais la puanteur d'un complot Sur ce point, je peux regarder tout le monde les yeux dans les yeux. Le tribunal a constaté qu'il n'y avait pas de viol. Sénégalais y jàpp lu ngeen ko toppee woon te bind ko ci parquet bind ko ci instruction ñëw indi ko devant la chambre criminelle bu fekk y a pas de viol on l'acquitte un point à la ligne waaye bëgg à tout prix rendre la personne inéligible créer fa une nouvelle infraction gis nga le droit on peut le tourner dans tous les sens def ci lu la waroon nañu yem juste ci accusation bi yóbbu nit ñi devant la chambre criminelle ancienne cour d'assises acquitté ko parce qu'il y a pas de viol Sénégal jëm ci kanam parce que li yëpp du xew mais vouloir le rendre inéligible comme ni ñu ko defee pour d'autres loolu moo indi problème bi et ñu ngi koy naqarlu parce que tout le monde nous regarde tey sénégalais c'est la risée du monde nous étions une vitrine démocratique mais fu ñu toll ni aujourd'hui je pense qu'on a honte même de dire qu'on est sénégalais ci loolu le F24 va poursuivre son travail pour que 2024 képp ku war a bokk bokk ak ay galgal ak yooyu ñu dindi ko fi dinaa ñëw si troisième point mooy wax léegi parce que c'est continuité la deuxième point bi bu ñuy wax démb gis ngeen des autorités policières def seen conférence de presse à partir de données yoo xam ni dictées par des politiques c'est vrai qu'ils sont sur le terrain ñun tamit quelque part on est sur le terrain Sénégal lañ nekk gis nañ fi loo xam ni en mars 2021 diñ ne woon amul sur le maintien de l'ordre public waxuma la la sécurité privée des personnes et des biens l'ordre public ce n'est pas du ressort de privé jël ay personnes yoo xam ne nekkuñu policier nekkuñu gendarme nekkuñu force de défense et de sécurité jox leen ay armes on appelle les jox leen ay pick-up on les a ñuy jaar ci kaw policier yi di génn kenn waxu leen dara devant les gendarmes di tirer sur la population su ñu nee loolu amul ils racontent leur vie et dans la conférence de presse d'hier waroon nañ ci wax mais on voit des photos ñu ne ñii c'est des gens qui sont mêlés c'est des forces occultes et pourtant ces pick-up là ont pris départ devant la permanence de la paix j'appelle le procureur à me convoquer comme nous me convoquait à l'une je lui donnerai les images qu'est-ce qu'ils font là-bas les forces de défense et de sécurité pour les citoyens pour le Sénégal quittent les commissariats les camps militaires la gendarmerie pour dem accomplir leur mission pas devant dans une permanence les plaques matriculation bu ñu bëggee on va les donner l'enquête sera là devant le juge d'instruction va approfondir oto yooyu ñan ñoo ko moom donc ak travail bi nga xam ne F24 mi ngi koy def dana egg à la CPI ñun ñëpp nous irons travailler là-bas moi je suis avocat Paris Branco dana def lu mu def dinaa def lu mu def mais ku fi dee ñu ñu jël dossier yi jébbal ñu ko ñu dem foofu képp koo xam ne rayoo sax mais tu es là en train d'appuyer ñii di rey ton langage de haine, tu seras dans le dossier. Moi, je l'ai dit à plein de gens. J'ai beaucoup d'amis qui sont de l'APR. Fala, nekkuma musuma nekk APR mais j'étais dans le Benno Bokk Yaakaar ñàkk fulla ak ñàkk fayda moo tax ñenn ñi def li ñuy def mais on ne m'a pas accusé de malversation financière après 6 ans et avoir géré 88 milliards loolu indiwu moom mais bu dëgg jotee noppi sikk la il faut le dire j'ai quitté le rang en travaillant pour le Sénégal et non pour un homme pour un homme ils sont pour des privilèges. C'est la raison pour laquelle je termine sur ce deuxième point pour dire que ces nervis-là n'ont rien à voir. Un ami journaliste me disait ce matin, quelle est la différence entre nervi et agent de sécurité <laughs> Mais c'est très simple. Un agent de sécurité il assure la sécurité des personnes et des biens sur le plan privé soit nga yóbbu sa kër mu gérer say biens wala mu assurer ta sécurité en tant que homme politique mu ànd ak yow un nervi c'est pour faire de basses euh, euh, des des des des yoo xam ni rey sàcc ak yooyu un agent de sécurité c'est pas ça son boulot c'est ça aussi qui est là je pense que nous avions aussi un contrat de 45 milliards ñenn ñi ragal ci ma man ragaluma ko nañ ñu wax fu mu arme yooyu dugg je pose une question très claire arme yooyu fu mu dugg de toute façon la CPI viendra expliquer clairement lorsque les personnes qui sont décédées inutilement leurs dossiers nous parviendront troisièmement et dernière position gis nga fii neewoon nañu Abdou Diouf président Abdou Diouf ne pas un n'était pas un homme de poigne mënul gérer réew mi yore na réew mi 17 ans am na lu mu fi def au moins. le président Ablaye wat ba mu ñëwee ñu ne amul karaw attanul réew mi le président Macky Sall ba mu ñëwee le président Ablaye Wade avait di sama élève la deux mois on n'aura plus de salaire nul n'est indispensable ku pare na nga dem président Macky Sall fi mu toog man mii falaa maa ko fa toogloo ak keneen. on sait ce qu'on a vécu en 2012 avec ñoom Mamadou Diop ce vendredi 27 janvier 2012 le jour où le conseil constitutionnel de rendre sa décision moom moo noot jour boobu on était sur la place de l'obélisque bu fekkee xeex nañu nag ensemble contre un troisième mandat waroon na jóge feneen ba mu fekk pa ñi nga xam ne ñoo ko xeex comme le président Macky Sall et d'autres J'ai entendu le 31 mai dernier, en plein dialogue national, parce que je suis parti au dialogue. Le troisième mandat fait partie des débats. On m'a privé de parole et je parle au ministre de l'Intérieur qui n'a pas été sérieux. Parce que jël na sait mon j'ai dit que je vais parler mais ba ñu ko tegee devant le président il dit celui-là ne parlera pas ça ne m'arrange pas nañ ko yóbbu ci ñoom Moustapha Niass xam nañ samay parole man je ne du ma ko raay mais quand j'ai entendu le président de la République dire ci njëkk ak teraanga ma delloo leen ko ci ndénkaane bu ñu la dénk moom ko ku la ko dénkoon nee la delloo ma ko pare nga nga ne ma non da may saraxu J'ai l'impression qu'on a fait des choses en 2012 pour rien. ba pare teg ci ñii àndaloon ak man en 2012 xam nañu bu ñu waxee référendum voté wi il savait que j'avais droit à un autre mandat à partir de 2024. faux archi faux c'est de l'escroquerie politique j'étais dedans j'ai voté le oui j'ai fait voter le oui bu waxoon ñun ñii que le oui. su ngeen ko voté j'aurai droit à un autre mandat en 2024 man du ma ko voté ñàkkuma keneen du ko voté le référendum alors bu fekkee argument boobu sax mën nañ ko accepter un peu c'est du n'importe quoi mais acceptable pourquoi avoir dit le 31 décembre donc deux ans après 2016 2024 su ma defee sama sept ans beeg cinq ans ba il faudra partir il se contredit Pourquoi l'avoir écrit dans un bouquin Donc l'argument ne tient pas. Mais nag j'ose croire encore que fi ñu Finitolni, en disant que ma xool Mahol Mabayelenko, il est en train de tanguer. Fi dem rek ben ici moo fi dem. Paré nga say ñaari raka da ngay dem kenen ñew ci jam. C'est ça le Sénégal e je pense que je vais me di là. Je remercier fi toog qui di xam ne tamit la Sénégal benn bopp la din moo jeexal te waxuma kilifa diine yi nañu génn wax parce que y a silence la bu ñu xaar ba yëf yi gën a egg fu mu warul egg ñu naan su ma xamoon il faut qu'il parle c'est ça aussi le Sénégal maa ngi leen di gërëm leen sant alors man li may njëkk wax mooy le régime actuel te loolu leer na ñëpp pour nous réprimer il est très fort mais pour nu protéger il est faible te loolu dugg na si bopp ñëpp ndax duñ fi ñëwaat si ay scénario yoo xam ne am na fi ñu gis ne liñ si waroon taxawee taxawee wuñ ko muy benn ñaareelu mbir mi feuilleton judiciaire bii ñu génn le premier juin ba le passé gis nañ ni instrumentaliser nañ fi assemblée muy deuxième institution de l'État yëkkati fi ay malaanu kiirlaay député muy Ousmane Sonko far yàlla fa mu mujjee mooy lañ koy toppee ne mbirum viol ak mbirum siif wala menace de mort dara amu ci tey preuve lañ am ne sofental nañ deuxième institution de la république waa capitaine Touré mi ngi ci daaxoon tey ban conséquence la nara am gis nga nit mën nga jël sa décret radier nit dàq ko wante mënoo radier nit ci xolu nit yi te loolu dafa leer fu mu toll nii suñu ay priorité xam nga si lan la waroon nekk suñu rakk yi ñi war a defi ji bac ñi war a dem def seeni composition suñu rakk yi jàngatuñu suñu prof yi enseignetuñu tey université temple du savoir tëj na loolu yëpp mu nekk ay problématique hivernage baa ngi ñëw gis nañ ay bulletin ANACIM wax ne dinañ am ay taw kenn toppatoo tabaski baa ngi ñëw tey le 5 boo rombee ci banque yi yu ci bëri dañ tëj gab yi nit ñi dañ fa ranga ranga ranga ranga ranga rang ñu bëri fii xëy da fayekuñu seen salaire loolu kan moo ñu ko teg benn régime boo xam ne dafa bëgg a maintenir fii nii taxaw nag défier ñu nee ñu pour ma dem dangeen may ñaan njekk waaw pour mu dem nee na ñu ñaan ko njekk waaye ñun liñ koy tontu mooy ñun dañ la joxoon mandat si njekk delloo ñu ko si njekk bugguñu réew mu tàkk bugguñu justice bu ñu manipuler bugguñu suñu ay force de défense et de sécurité yi nga xam ne dañ leen fonk week leen ñu jàpp ñu di ñu dóor jël ay xale yu ndaw di leen ériger en bouclier te démb ba ñuy def déclaration à la presse revenir uñ ci waroon nañ ñu wax lan moo tax suñu rakk yu ndaw jooju suñu suñu doom jooju ñu jël ko def ko en bouclier donc fu mu toll nii wax ji du gudd ni ko waxee mooy yaay yi sa sëngeem nañ rakk yi ñu ngi jooy xanaa nag duñu ñu xaar ba ñuy jéggat di jéggat di jéggat ay mois pour que suñu njiitu réew génn wax te santuñu ko lenn négocier wuñu lenn maanaam constitution bi dana la nul nëpp exerce exercer plus de deux mandats consécutifs yem ca delloo ñu caq bi ñu la delloo woon ñu denk ko keneen parce que le peuple et souverain. ñaareel bi li si war si manifestation ba le ñu jëm muy le 8 ak le 9 le 9 et le 10 plutôt dinañu fexe ba suñu mbokku jigéen yi ñëw en masse dinañu fexe ba suñu rakk yi wala suñu mag yi nekk ay ndaw ñëw en masse te maa ngi invité la presse ñu invité ndaw ñi wax ak ñoom parce que gi bëri lu nuy gis mooy dañuy nekk ci télé yi ci rajo yi di juger ndaw ñi pourtant pendant ce temps depuis dimanche nit samedi plutôt nit ñi ñi ngi mobiliser wu centre national de transfusion sanguine di joxe ay téeméeri téeméeri deret pour ñi nga xamante ne dañu feebar. tey li doon priorité gouvernement bi mooy fexe ba am une politique nationale de la jeunesse li doon priorité gouvernement bi mooy fexe ba mutualiser les agences yi nga xam ne dafay lekk suñu alal. li doon priorité gouvernement bi mooy fexe ba sunuy milliards du rees lii priorité gouvernement bi mooy fexe ba ndaw ñi mën a am jàng bu ñoom 15 jours bi fi romb nii organiser nañ fi lu tollook ñetti salon wala forum organiser nañ fi forum de l'économie sociale solidaire organiser nañ fi salon de l'entrepreneuriat et de l'emploi organiser nañ fi salon du numérique waaye fan lañ mujjee ndaw yi ñoo génn di xeex te Sénégal am nañ organisation ba nga xamante ne képp ku ñu gis ngay bandi képp ku ñëw gane suñu suñu chef de quartier yi dañuy dénoncer suñu chef de village dañuy dénoncer kon nag buñ ñu ne ay force occulte ñoo fi ne gis nga taxaw di bàkkoo force occulte fexe ba sa ndaw dàq say force occulte moo ko gën te ñun ñi taxaw nañ pour sauvegarder suñu démocratie Sénégal amatul pour def démocratie fu ñu toll nii mooy consolider suñu démocratie fu ñu toll nii mooy fexe ba ni Nigéria di bàkkoo man kat sama président ñëw na def na troisième mandat dajale na acteurs yëpp def peace accord maanaam accord de paix boo xam ne acteur politiques yëpp dañ siy tënku ñun foofu noonu la ñu bëgg suñu réew jëm. incha allahu rabbi pétition bi nga xam ne lancé nañ ko ñi ngi wax bépp ndaw ñi ngi wax bépp góor mi ngi wax bépp jigéen. nañ ko signer en masse te yéen presse bi autocensure bi ñu leen def ñu bëri tey fii amuñu connexion mënuñu liggéey jóg leen ngeen xeex ko buñ ko bàyyee rek acteur politique yi buñ ko bàyyee F24 ñun ñëpp nañ nekk benn say taxaw ne non à un troisième mandat le peuple est souverain et le peuple restera souverain je vous remercie de votre aimable attention ñuy seet di jox suñu solidarité di ànd mettitlu ñi nga xam ne am nañ ci ay gaañu gaañu ca nekk ci hôpitaux yi waaye ñuy jox solidarité aussi di seet ñi nga xam ne jàpp nañ leen def leen ci commissariat yi ak ñi nga xam ne jàllale nañu leen déjà euh, prison ñu nekk fa ci ay jafe-jafe ak i coono te euh, teguwul ci dëgg teguwul ci yoon may gërëm ñi ma jiitu ci jël kàddu gi Mamadou Mbodj Aliou Sané maître Moussa Diop ba ci honorable Mariem ndax wax ji dëggu na wax ji set na wax ji leer na ndax dëgg bu jibee dafay génne ci xol sénégalais yi gëm naa ne noonu lañ ko déggee ndax fi ñu toll jëf rek moo des ci réew mi Aliou Sané wax na ni chaîne tele wala rajo boo jàpp ci àddina bi yaa ngi gis ñuy wax Sénégal jàppuma ni sax dañ ci wax lu ñaaw ci deru Sénégal ñu bari li tax ñu wax ci mooy dafa am fu ñu tegoon Sénégal ak weg gu ñu wegoon Sénégal dafa am dayo bu Sénégal amoon ci àddina bi ndax Sénégal joué woon rek rôle pour moom dafa joué woon rôle yor raaya ak drapeau wu Afrique foo mësee ni Afrique dafa bëri violence am ay guerre am ay coup d'état amul démocratie forum bu ñu ko mës a waxee ci àddina waaye dañ naan am na ay exception senegal ci la bokk ba taxoon ñëpp tem am fuñ ñu tegoon bi yii xewee ci réew mi ñu am ci njaqare am ci naqar ba tax ñu yëkkati kàddu jàpp ni réewu Sénégal ak njiit yi danañu dégg boobu message ak écho bi mu def au niveau international réew mii di réewu Njaajaan Njaay ak Thierno Souleymane Baal réewu Ndate Yàlla Yaasin Buubu maam Cheikh Ahmadou Bamba maam Maodo maam Limaamu maam Bou ak maam Baay réew mii di réewu monseigneur Thiandoum ak ñi ko wuutu ak ñi mu fa ñi mu jiitu réew moomu ñu xam ko ci ngor xam ko ci jom xam ko ci fulla ak fayda ba kolon yi bi ñu fi nekkee ni réew yi ñu mës a coloniser yépp Sénégal ci gën a jafe yor ndax seen njom ak seen njàmbaarte ku fi ñëw jiite ko ñu teg la fi ci démocratie ak droit nga defe ni mën ngaa dem ba def sénégalais yi ay jaam bëgg a def buumu jaameel ci seen baat di ñu xëcc di ñu opprimer yaa ngi nax sa bopp. moo tax Macky Sall dafa juum erreur bu rëy rëy la def bi mu demee ba foog ni nag yor na lépp ci pouvoir naagu na desul lu dul bu jël sénégalais yi opprimer leen def leen jaam pour toog fi juum na ndax loolu ku ko mën a def senegal fii def ñu oppression. def fi dictature wala tyrannie sa maamaati maam sax juddoogul man maa leen wax lii ndax bi fi tubaab bi ñëwee ak esclavage bëgg a jaay am na ñu ko ànd ak ñoom nangu ko yàgg naa ko wax fu nekk waaye am na ñu ko xeex fekkewuñu ko lañ am ca ginnaaw leneen la waaye ña fi nekkoon a ngi fi ba tey te lu jiwu wa jeexul jógu fa moo tax may envoyé message suñu jeunesse bi nekk ci mbedd mi ñu leen di jaajëfal ñu leen di encourager ñu leen di féliciter ñu leen di wax nu sommes fiers de vous foo ngeen ko natt rek wut ëpp na ko ndax bu leen neexoon ngeen toog seen biir néegi ak seen kër yi di commenter di naan ataaya ni lu xew baax na da ngeen jël seen drapeau génn xeexal seen askan xeexal seen réew xeexal seen avenir ku jàpp ni amu leen xel wala amu leen perspective wala di ngeen di def xamu leen ko kooku moo xamul li ngeen bëgg yéen Sénégal bu wér ngeen bëgg Sénégal bu leer ci seen bopp perspective d'avenir yu wér ngeen bëgg ku leen ko bëgg a xañ ngeen jàkkaarloog moom loolu moo leen génnee moo tax ñu jàpp ñu ni ay force obscure ngeen de jàpp ñu ni ay terroriste ngeen jàpp ñu ni ay rebelle ngeen ñi ko wax xam nañu ni waxuñu dëgg bu leen kenn découragé mbaa mu def loo leen ba ngeen xalaat lenn ci yéen y compris ñi génn ñu naan dañu def ay violence ñun rafetlu wuñu ko encouragé wuñu ko waaye fu am manifestation àddina ba États-Unis mbaa France ñi gàmmu ak ñiy raas dem bokkuñu dina am ay cent mille yu génn di manifester dina ci am cinq cent yuy génn pour def leneen te ñooñu ñuy wax ay ay force obscure lañu ñoom ñoo ni woon 2021 ay force obscure dugg nañu ci réew mi est-ce que mës ngeen gis benn bés bu ñu leen génneel nit ni la jàpp nañu force obscure wala rebelle 2021 ak léegi jugé nañ ko daan nañu ko xanaa dañ leen jàppoon ba pare bàyyi leen ñu dellu génn fa ñu nekkoon est-ce que ñoo dellu si ko wax sénégalais nañu bàyyi seen tappale yi bu ñu génnee woon sax nit ni kii rebelle la wala force obscure la wala xaw ma nu ñu ko tuddee ñun dañu naan leen yéen yéen a ko former encouragé ko créer ko indi ko dugal ko ci manifestant yi pour bu ñu defee ñaaw ñaawteef génn ñii ñoo ko def jeunes yee ko def wala yooyu parce que mënuñu nax kenn foofu la réew mi tollu may daaneel nag di wax Macky Sall rafetlu ñu li mu génnee armée Sénégal mu jàkkaarloog askan wi yor ay armes ñaawlu nañ ko condamné nañ ko te lu ci am ëllëg. moom mooy jël toute la responsabilité moom ak ñi mu àndal ndax Sénégal yeggagul fu mu mën a génnee armée ci ay population yuy manifesté loolu na ko xam te lu ci am ñii wax nañu ay tribunal pénal international wax nañu yeneen te amul dara loo xam ne dañ ko ci bàyyi moom mi xam ne moo génnee armée bi moo ko fa waroon bàyyi fa mu nekk moom mu génn en tant que njiit bu fekkoon mat na li mu doon parce que njiit du rëy njiit ñun ñun ñii mën nañu am suñuy défaut doomu aadama ñu am ñu am rëy bu nekk ci ñun wala ñàkk humilité wala orgueil waaye un président de la république bu jiite askan boo xamee luy président luy charge am luy fonction bi da ngay am humilité bu génn jotee da ngay génn jàkkaarlook sa askan nga nangu say faute ak say erreur Macky Sall lii fi xew 2021 ñëpp newoon nañ ko lii dana narmeel réew mi arrêté ko mu bañ ko def kon moom mooy responsable bi na génn wax ak askanu senegal mu ni leen benn man Macky Sall amuma lu ma leen di wax ni ñaan leen ma ko pour ma may leen ko ci lu jëm ci mandat suñu mandat la ñun sénégalais yi danañu ko delloo te duñu ko négocier duñu ko ñaan njekk loolu na ko xam muy benn na génn wax ko ñaar ñii ñëpp wax nañ ko damit koy baamtu rek bi mu demee ba xam ne li mu tuumaal Ousmane Sonko du dëgg ñu fexe lu nekk xam ne mënuñu ko condamné nañu ko bàyyi mu génn këram gi violation des droits de l'homme la atteinte à son intégrité la attentat psychologique la ñuy def moom ak njabootam te teguwul ci benn mandat teguwul ci dëgg te loolu nag avocat yi dinañ ko liggéey askan wi dina ko liggéey mais ci askan woowu laa bëgg gën a insister. manifestation yii ñu leen fi annoncé askanu Sénégal dañu naan le pouvoir arrête le pouvoir le pouvoir oppressif d'un tyran le pouvoir d'un peuple et des citoyens moo koy arrêté en démocratie. bu ngeen génnee di nekk ay millions ci mbedd mi génn di nekk ay millions ci mbedd mi drapeau à la main ngeen di entonné seen hymne national di woy woy yu fi maam yi bàyyi woon muy muy kañ ngor ak jom moom Macky Sall dina xam ne jeexal na je di ci manifestation F24 bi mujj Macky Sall est impopulaire dans ce xam na ko ultra minoritaire kenn bëggatu ko am desewu ko lu dul jël doole sës ko ci askan wi ku ja wax mu jàpp la tëj ñun ñii fi toog ci taabal ji li lay woon personnalisation du pouvoir bi mu nekkee bu ko neexoon fa mu toog lay toog ni kii suba bu mu fanaan këram kii gannaaw suba na ngeen ko téye soxlawuñu ndax def nga wala defuloo ngeen defe ni sénégalais yi dinañu nangu loolu fu mu jàppee ñaar fukk génn fu mu jàppee fukk téeméer génn fu mu jàppee téeméer mille génn ba keroog muy xam ne mënul am ndam mu dellu ginnaaw. am xol bu metti ci jëleti kàddu di wax ci situation bu réew mi. Macky Sall war na am gàcce fu mu toog parce que tout simplement dafa organiser dialogue am le mercredi dëkk bi tàkk le jeudi c'est vrai on nous parle de violence cette violence elle est à chercher ci dialogue bi Macky Sall def parce que kaddu yu violente ces paroles violentes yi nga xam ne dégg nañu ko ci dialogue bi Macky Sall organisé la jeunesse sénégalaise delloo nañu ko ko parce que ay sëriñ bu ñu taxawee naan ko gëmmal te dóor ñeneen naan ko booy gëmm te dóor na ngay xoolaale te dóor jeunesse bu Sénégal wan nañ ko ne ko bu ñu xippee danañ fayu c'est pas pour d'accord ci yenn ci situation yi xew moo tax may wax ne nañu bàyyi di yedd jeunes yi nous avons une jeunesse consciente ñoo xam ne ñoo nu gën a conscient des enjeux de l'heure ñi génn dans une manifestation façon bu nekk ngay am mais ñoom ñëpp mbaam gàtt na mais ci jur gi la bokk cette jeunesse opprimée cette jeunesse sans espoir ñoo génn jàkkaarloo ak Macky Sall parce que nag réew mi maamu kenn moomu kenn donn ko dégg nañu ko muy wax ne nañu ko ko ñaan ci njekk non par force la e wan nañ ko ne ko par force lay doon moom du def troisième mandat et les Sénégalais sont déterminés à lui faire face j'interpelle les forces de défense et de sécurité parce que nag on va se battre comme ni ko su ma naatango ngay waxee léegi pour qu'il y des enquêtes mënuñu comprendre force occulte yi ñuy wax mënuñu comprendre force obscure yi ñuy wax parce que nag dafa mel ni saaga suñu ay forces de défense et de sécurité mënuñu 2021 ba léegi ñu ñuy wax ay forces occultes malheureusement ñooñu ñu tuddee force occulte ci imaginaire u Macky Sall la parce que li mu bëgg mooy jouer sur la stratégie d'apeurer les population Macky Sall xale yi génn ci mbedd mi li ngay tiitali nit ñi coup d'état armée ak nangam sangam booy yi xamuñu ko parce que dunduñu ko nit ki loo ragalul loo xamul munoo ko ragal ça veut pas dire que dañuy woo fitne ci réew mi mais kenn dong moo yor clé jàmm ci réew mi actuellement mooy Macky jàmm jooju mooy taxaw pour wax réew mi ne leen bëgguma troisième mandat duma def troisième mandat donte bëgg na ko moo tax ñu génne ñun carton rouge pour lui dire que ñiy xëccoo ñëpp war nañoo bokk ba mu des yow Macky Sall waruloo ci bokk kon tentative yi muy def pour éliminer ay candidats notamment cette instrumentalisation de la justice il faut que ça cesse Macky Sall réew mi moo moo ko donnoo ko élection yi di ñëw ku ci nekk ku ci am yéene daf ci war a bokk ce qui est en train de se passer ku nekk ci ñun ñi xamoon nañ ne fii lay mujj mais nag am na ñoo xam ne bu ñu reppee ci xare lu ñu jiñ dañu koy xeeb yaakaaroon na ne lii fi am du fi am yaa waxoon na ne lii fi am dootu fi am mais le peuple est souverain cette jeunesse elle est debout opportunité bi ñu am pour ñu dégg leen nañu leen bàyyi xel bu kenn ci politiciens yi yéen ñi toog fii yaakaar ne yéen a tax ñu jóg ki taxaw ci buntu Auchan bi di ko dajji kooku xeexul pour ñun ñi dafay xeex pour survivre ceeb ba mu fa am wala dëwliñ bi mu fa am wu nanguwuma ne daf ko war a def mais mun naa expliquer lan moo tax mu koy def sécurité bi ci jiitu mooy fexe ba sa doomu réew nekk ci situation bi gën sécurité bi ci jiitu mooy fexe ba xale yi ñu am liggéey ngir mun a tàggat seen bopp ngir mun a faj seeni soxla sécurité bi jiitu mooy fexe ba démocratie lal law ci réew mi te démocratie pour mu law faw liberté jiitu sécurité bi jiitu mooy fexe bañ a noot démocratie li xew ci F24 mercredi dernier ngay dialogue nga ne yow yaay dialogue keneen du jaloog mété buur ñu dem ci siège grand parti nga fekk leen fa génne leen démocratie day noyyi da nga koy bàyyi mu noyyeeg bakkan bu noyyeewul bakkan noyyeeg gémmiñ boo fattee gémmiñam mu yëngal ay loxoom bu yëngalee ay loxoom fitna rek lay doon donc le seul et unique responsable de ce qui est en train de se passer du kenn c'est le président Macky Sall ku artuwul nag di nga àtte ñi war a wax nañu wax ak moom xëy na sax wax nañoo ak moom mais dafa dëgër bopp boo ko xoolee mu ne ñum noonu noonu la dëgëree bopp et lu mu matt day dagg mais dina xam ne ñu on est déterminé on est engagé lu ko lu mu ko jaral moom pour yàq réew mi na ko jàpp na ko na ko na gëm ne jaral nañu ko ñun aussi pour defar réew mi je vous remercie